اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم نيغي نويو نييب دي زيار نييب دي لن دوكيل دي لن بالو حق دي لن بال دي يالا يالا نا يالا بوله ديفال ني نجيغل لي ني دون جانغ ييت يالا نكو يالا نانغول سي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تاي نيغي دون جانغ بونتو جوروم نياارل بي آه، boroom nag daf ko def ci riñaan gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon def riñaan gi nag ya ca xew bare na waaye moom am na yum ca tudd su ko defee rekk bokk na ca yem ca tudd mu ni yaa xayra man yammama al aafuuna sa'yan wa fawqa mutuunil aynuqir rusumi waaw bay bu seyri def ne yaa xayra man woo naa yiw ka nga xam ne walla woo naa mbaaxu ka nga xam ne yamama jublu na alaafuuna way xaaraan ña saaxatahu ëttam ba yonent bi ñuy xaaraan ñépp ëttam ba la xaaraan ni ji mu ni kooku de woo ak mbaaxam Mhm. mu ni nag ñay dem ci moom saayan am na ñoo xam ne dañuy dox bu ñuy dem waaye am na ñoo xam ni wa fawqa tuunil ay nuqi am na ñoo xam ne dañuy dem ca yonent bi waaye ña ngay jaare ca kaw joggerey giléem ya mooy diggi gannaaw ar rusumi giléem yay aji riñ ci nga xam ne dañoo daw a daw a daw ba mujj dañoo roode am na ñoo xam ne bu ñuy dem ci yonent bi salaay sallama dañuy dox waaye am na ca ñoo xam ne bu ñuy dem ca moom dañuy war giléemu loolu rek la bëgg a wax waaw la ko ndeysaan waaja waxoon waa ju mën a wax daf ko waxoon yonent bi salaay sallama ni ko bu la fu la neex nekkal yow yonent bi fu la neex nekkal ak foo mën a ne rek danañu war suñu waruwaay fekk la fa foo mën a ne ci kaw suuf danañ la fa fekk kun xaysu shita tasil ilayka rikaabuna fal ardu waaxidatun wante wa antal awhadu ah loolu la ko waxoon nekkal fu la neexew yonent bi ah danañu war suñuy waruwaayu fekk la ba fa nga nekk suuf si yaatu na de waaye yow dong nag yow yaa fi nekk keneen new fi fal ardu waaxida waaye wa antal awxadu looloo tax bàyyi bu séer yi mu ni woo naa mbaaxu waa ja nga xam ne ñiy xaaraan ñépp ëttëm ba lañ jëm mu yonent bi من كوكنك ومن هو الآية الكبرى لمعتبر وأي ومن هو النعمة العظمى لمغتنم نينا يننت صلى الله عليه وسلم ومن مويك نخمنا هو من دون الآية مويكيم تانبا يننت بي مويكيم تانبا آية الكبرى كيم تانبا مكبا سوفك يدنغا بغي كيمان رك بايبو أنغا تكسي بطيان صلى الله عليه وسلم من دون مويكيم تانبا نجي دس نيب تي كيمان أم لنيو كيمانو li muctabirin ñeel aji xalam nit koo xam ne dafay yebal ay xalaatam di xalaat ci ay kéemaan soxlawul muy jéggi yonent bi ndax bu jéggee yonent bi du gisati kéemaan képp kuy xalaat rek bay boo xalaatal ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ndax mooy kéemaan moom rek a jar a xalaat waaye waman yonent mooy ka nga xam ne huwa moom dong an niamatu mooy xéewal gë al xéewal gu màgg ga li muxtani mi ñeel koo xam ne day màngi xéewal su fekkee yow da ngaa war sa fas pour uti ji xéewal waaye waaye bay boo jéggi fi ñëpp te dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom mooy boroom xéewal yi ci képp koo xam ne da ngaa bëgg xéewal bay bu sëyri nag daal di tàmbali nag cereñaan ga mu ne ko sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama saral badru fii daajin min adulami mu ni ko sarayta yow de reñaan nga reñaan buñ ko waxee mooy jóg xaaju guddi reñaan firiwul dox guddi rek de jóg xaaju guddi waaw bu minuit xasee paase rekk lu ci tagu rekk yow da reñaan mhm. loolu mooy saraa ci arab mu ni ko sarayte yow de reñaan nga laylan guddi min xaramin nga tukkee ci xaram ila xaramin jëm ci xaram xaram bu njëkk bi mooy màkkatal mukarram ndax masjidul xaram xaramu ñaareel bi mooy masjidul aqsa ndax fa lañ doon jublu laataa ñuy jublu ci kaaba gi moom nga dégg yàlla subhaanahu wa taala di ko wax ca subhaana alladi asre bi abdihi laylan min al masjidi al xaraami ila al masjidi al aqsa alladi barakna xawlahu dégg ko mu ni kama sara naka lay reñaane albëdru weer wu mat sëkk nga xam ni bu xasee am fukki fan ak ñeent moom weer fa mu nekkoon daf koy jóge nag daal di tuxu dem feneen noonu weer di reñaane noonu la yonent salaay salaam reñaane ju ko màkkatal mukarram dem baytil maqdis dégg nga ko moo tax mu ni kama naka lay reñaane albëdru weer wu mat sëkk dégg nga ko fii daajin ci biir lëndëm waaw lëndëm minadulom bi ba pare jóge ci lëndëm ndax xam nga weer day génne ci lëndëm duggaat ci lëndëm fu mu romb nag leeral ko gis nga fii daajin mi nag ji loolu euh, dafa am lu bu baay euh, baay bu sëriñ bëgg jàngale dafa bëgg a wax ne màkka lëndëma fa ne bu leeree yonent moo tax mu leer fi yonent jóge lëndëm la waaye fa mu jëm lëndëma fa ne bu leeree yonent moo tax mu leer ndax weer fu mu romb leeral ko dégg nga wax bi ok mu ni nag yow yonent wa bitta tarqa ila an nilta manzilatan min qaabi qawsayni lam tudrak wa lam turami mu ni ko wa bita fanaan nga yow yonent salaay sallam terqaa di yéeg waaw yaa nga yéeg di dem rek ilaa an nilta ba nga dem ba am yow yonent bi manzilatan wàccuwaay boo xam ne wàccuwaay nag mooy daraja rek daraja boo xam ni àgg na ci jege yàlla ci min qaaba qawsayni xam nga qaaba ni dinañ ko firee diggante xal ak xocc waaye dëgg-dëgg xaaba xaw say ni firiwul loolu xaaba xaw say ni mooy boo jëlee benn xala nga dëngal ko jël corde takk fii takk le jël beneen def noonu dëppale ñaari kord yi gis nga noonu jege yooyu loolu mooy xaaba xaw say ni dégg wax bi te yàlla wax na ci alquran mu ni gis nga sax jege boobu sax ëpp na ko moo tax nga dégg mu ni min xaaba xaw say ni aw àddina waaw bu ko defee nag xaaba xawsayni aw addina jooju di nga fekk yenn borom xam-xam yi xaaba xawsayni ñu ni mooy xaqiqatul muhammadiya aw adna muy xaqiqatul ahmadiya waaw dana ko firi bu ko defee mu ni ko yow yonent gis nga loolu nga am lam tudd rek kenn dootu ko amati ci gàttal rek maanaam yow kenn du la dab ca loola waaye walam turami kenn dootu ko sàkku ndax nit looy ñaan day fekk nga xam ko li yonantu moko ko am sallallahu alayhi wa sallam moko mujjé am motax xolal wax bi muni ni wa qaddamatka jamiu lanbiyaai biha wa ar-rusul taqdima makhdumin ala khadami wa qaddamatka jiitu la yow yonant sallallahu alayhi wa sallam biha ca waccu wàccuwaay yoyu muy asaman yoyu nga xët jamiu al anbiya mbolé yonent yi ndax yonent yi danañuy riñaani waaye bañ daan riñaani yi daawuñu àgg fa nga àgg yow yonent bi salaay salaam li la koy tegtal mooy yonent yàlla muhammad bi mu ànd ak sayyidina jibril alayhi salaatu wasalaam ñu demee ba ci asamaanu benneel ba ñu nuyoowee fëgg dégg ngeen malaayika yañ fa fekk dañ leen ni ñooñu ñana jibril ne ah mana dama ànd ak soppeeb yàlla ba di sayyidina muhammad malaayika yi ub mu fekk fa suñu maam aadam mu dalal ko kon xam nga yonent yi daan nañu riñaan ndax aadam mi ngi ko fekk asamaanu benneel dégg ko yonent yàlla isa nag ak yontu yàlla yaxya ñoom ñaar ñoo bokk nekk ci asamaanu ñaareel te li ko waral du dara lu dul ni yee yontu yàlla isa dafay wàccaat moo tax te bu wàccaatee place bi warul vide moo tax moom ak yontu yàlla yaxya ñoo fa nekk noonu la ko toppee moom yonente bi salaay sallama bu ca juróom-ñaareelu asamaan nga xamante ni bii ni foofu la dajeeg sunu maam ibrahim juróom benneelu asamaan foofu la dajeeg yontu yàlla muusa alayhi salaatu wassalaam loolu lay wax naan wa qaddamat ka jiitu na la yow yonent bi bihaa ca asamaan yooyu jamiul anbiyaa yi mboole yonent yi waaye war rusuli ak ñi yàlla yónni muy 313 yi waaye jiitu gi ni mu mel mooy takk taqdiima maxduumin jiitu kañuy liggéeyal ala xadami ca liggéey ba xam nga tey entrepreneur bi xëy daal di wax ay apprentim ni leen dem leen ngeen jiitu ma ca tabax ba ñu dem jitu ko fa liggéey liggéey liggéey liggéey tabarkalla ba euro wacc jot mu doog a dawal oto wacc ni leen xaaral ma xol li ngeen def ndax baxna baxul gis nga embauché yeb moy 124 prophète yi yaronte bi alayhi wasallam moy entrepreneur bi c'est lui qui entre c'est lui qui prend su ko defé nak mom moy xol li nga xamanteni bi ni jagul mu lijeenti ko loolu moy taqdima mahdumin ala khadami dafa bëgg jangale ni jitu buñ la jitu ci asaman yi du gën la tedd dedet yow ya tax ñom ñu tedd nee na wa anta taxtariqu sabaa tibaaqa bihim fi mawkibin kunta fiihi saaxibal alami mu ni ko yow yonent sallallahu alayhi wa sallam wa anta yow de taxtariqu yaa ngay bëtt di dem assabaa waaw juróom-ñaar ya juróom-ñaar tegaloo ndax alquran noonu la jàngale hmm? alquran dafa ni asamaan yi dañoo tegaloo wante suuf dañoo toftaloo bokkul asamaan yi da ngay bëtt benn daw lu sore bëttaat beneen waaye bu dee suuf yi nag moom benn tàllal la suuf bii daa tàmbalee fee yem fële bi ci des tàmbalee fële yem fële ba juróom-ñaari mat moo tax asamaan yi boo xoolee ci ci alquran ñu di ko def pluriel di ko jamcu te bu dee suuf yi la ñu di ko def euh, euh, singulier kenn du ko jamcu xam nga boo ne allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la taaxuduhu sina wala nawm lahu ma fi samawati gis nga ko jamcu ko waaye wa fi ardi nga def ko mufrad dégg nga moo tax mu ne ko yow de yonente sallallahu alayhi wasallam da nga fanaane xotti di bëtti asamaan yay dem waaye bihim ca ñoom yonent ya sallallahu alayhi wasalaatu wasalaam yaa ngi leen di romb di dem fii mawki bi nag yow yonent bi nga nekk ci biir mbooloom malaayika moo xamante ni bii ni kunta nekkoon nga yow yonent bi fii ca biir mbooloo ma saahibal alami di borom daraja di borom màndarga parce que alam li muy firi dëgg-dëgg benn grade la boo xamante ni bii nii généraux yi bu ñu daan dem ci xare ñoom lañ koy jox ñu takk ci seen jë mu wàcc ba ci seen bakkan ñu xam ne kii mooy généralu xare bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag fu mu romb dañuy xam ne mooy général bi ñoom moo ñépp moom la ñuy toojal moom du toojal kenn loolu mooy fii maw ki mawkibin ci mbooloo moo xam ne kunte nekk nga yow yonent sallallahu alayhi wa sallam fii ca mbooloo ma saaxiban adam yi di borom mandarga dégg nga mu حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم ولا يمنك حتى إذا لم تدع حتى حرف غاية دفعي ونني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دمنا بسس بعد حتى لولي لي حتى إذا لم تدع دم بغا خمنتني بيني تغنو شأوا من لف waaw dem ba yow yonente sallallahu alayhi wa sallam hatta isa lam tada dem ba yow yonente sallallahu alayhi sallam sa gannaaw shëwan benn lef lef mooy foo xamante ni bii danañ fa daw foo xam ne mën nañ fa parcourir distance bu ñu war a daw loolu la ñuy wax ci tubaab ci wolof lef dégg nga li mustabiqin ñeel aji rawante gis nga yonente sallallahu alayhi wa sallam fépp foo xamante ni bii dañ fay rawante rek raw na ñëpp boo ko ci judd moo raw ñëpp soo ko xoolee ci jikko moo raw ñëpp riñaan gi it kazalika yonent yi amu ci kenn koo xamante ni bii ni mas nga riñaan ni sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam riñaane mastaam dégg nga moo tax mu ni ko xatta ida lam tada dem ba yow yonent sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwuloo gannaaw jawan menn lef li mustabiqin ñeel aj rawante mina dunu wi ci jege yàlla waaw kep ko xamanteni bi ni ma nga fex wuti yalla yow rom nga ko yag na na nga jégué yalla kenn duñu jégué yalla wala marqan yow it bayyi wo ben yéeguwaay way dul yéeg nga ca li mustani mi ñel aji kowe fep fu nit di yéeg ci ay maqama pour kowe ci yalla yow yaron sallallahu alayhi wasallam yënga ci maqaama yépp yonente sallallahu alayhi wasallam mboole maqama yi ci mom la dajé mom nga dégg kat ba waxon ko ko لكل نبي في الأنام فضيلة وهي وجملتها مجموعة بمحمد dégg nga ko loolu rek la yàlla ñi mu baax le bari nañu lim leen defal ci mbaax bare na waaye mbaax googu yépp daf ko jëlee ci yonent bi ndax lépp ci yonent bi la dage nee na xafadta kulla maqaamin bilifadati id nuudiita bi rafqi misla al mufradi alami daf ko ne xafadta yow yonent bi wàcce nga suufeel nga kulla maqaamin bépp maqaama yow yonent féete nga ko kaw maanaam maqaama yépp war nga leen bil ifa bil idaafati ci ak laaf maanaam maqaama boo romb rek yóbbaale nga ko bàyyiwoo ko fa is keroog ba nga xamee ni nuu diite wooweef na la yow sayiduna muhammad bir rafi yow woowu ñu la boole dara dañ laa woo bir rafi yaa muhammadu gis nga ko parce que munaadaa la te munaada buñ ko rafoo kenn du ko laaf dégg sama wax moo tax muy is keroog ba nga xamee ni nuu diite wooweef na la yow yonent salaay sallama biir rafi cik rafa muy yaa muhammadu dara topp ci yow donga maqaama boo romb nag yóbbaale nga ko mislal mufrad nga mel ni mufrad mufrad mooy singulier kenn kenn koo xamante ni bii ni alalami ku ñu ràññee ca biir nit ñi la dégg nga gën na xóot noonu nag ndax lii problème mu naxwu la yeneen salaay salaam dafa lii bay bu sëri li mu ko bëgg a jàngal mooy yow ci yow la lépp daje waaw yow yaa boob bi lépp yóbbaale waaw yow ci yow la ñuy jokk waaye yow doo jokk ci kenn moo tax mu ni ko xafarta kulla maqaamin dégg nga wax bi mu ni loolu nag du dara lu dul ni rek kay ma tafuusa bi waslin ay mustatirin an al uyuni wa sirrin ay muktatimi kay ma ngir nga texe ngir nga am yow yonent salaay sallama bi waslin ci jokkook yàlla goo xamante ni bii ni ay mustatirin nag gumu ci ak nëbbu la añul uyuni walif bët yi gis nga yonent salaay sallama jokkoo gi mu jokkoo ak yàlla loolu nit mënu ko xam ba di ko tudd di ko wax xam nga looloo waraloon ku mel ni euh, jalaalu diin suyuti soo demee ci xasaisul kubra ak xasaisul sughra yépp wax na ci wax yu doy waar ci yàlla jagleel yonent sallallahu alayhi wasallam bokk na ci yi ko yàlla jagleel bokk na ci kenn du ko xam moom yonent bi loolu jagleem la bokk na ci li ko yàlla defal te kenn amu mooy moom yonent bi kenn xamu ko ku dul yàlla waaw ah, moom nga doon dégg mu ko doon wax naan naa mu nu mu waxee ci bayit yi sax xaka suyutiyu fii kubral xasaa'isi an jabraila an zil arshi subhana defe naa noonu la woon لا يعرف الله إلا الله جل كما لا يعرف المصطفى إلا هو عرفانا وكي مجنون جرجف نينا كدول يالا خمولو يالا وانت كدول يالا خمولو يونت صلى الله عليه وسلم لولو لهم لا موتاك غيس نكو كاي ما تفوز نجير nga أم يو yonent بي صلى الله عليه وسلم بي وصلين تي جوكو تي manam ni nga jokko ci yalla ay mustatirin gumu ci نبو عن العيوني walif bati wa beut agul سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ني مو جوكو شي يال الله لي دا فاي جوني رك حقه المحمديه حقه المحمديه لي ساج مالك واخ تي سي بريك موتي نيك نورنا حاط به الانوار حاجبه عن الحقيقه كل الخلق يا الله باتي يونتي لي ني باخ باخ باخ بيتاي كي صبا سين بت تغول شي حقيقه المحمديه واو كاي موي عن العيون ولف بتي وسر ak nga am mbóot secret boo xamante ni bii nii ay yi mukk tatim yi dañ koo nëbb gumu ci nëbb yonent salaay salaam secret bi ko yàlla defal loolu coow a bari rek daa ñuy wax mais kenn xamu ko nag ma wax la ko waa kenn xamu ko waa kenn xamu ko waaw kay ndax moom ci am na ca loo xam ne sax moom xamu ko waaw su ko defee nag mu ni yow yonent salaay salaam fa xusta kulla faxaarin eh, gayri mustarikin waaw وجزت كل مقام غير مزدحم واو نينا فخزت يو يونت امغا لاقغا كل فخار ندم ييب ليب لوي ندم يو يونت امغا كو غير مشتركين تبوكلو كو كين واو واو يونت بي ندم ييب موي بروم تبوكو كو كين واو وجزت يو يونت جيغيغا kulle maqaamin bépp maqaama bu yàlla di takkal góor yàlla yow yonent jéggi nga maqaama boobu ba yaa ngi ci beneen te ba nga koy jéggi xolal xëyri musdaximi buuxante woo kenn ndax yow kenn dedul sa moroom bay ànd ak yow kenn wéttaliwu la ba ngay jéggi maqaama yooyu yow donga campagne loo defuloo dara buuxante woo kenn gis nga wax moo mu ni ko wa jalla miqdaaru ma wullita min rutabin wa azza idraaku ma uliita min niami nee na ko wa jalla màgg na màgg na lool miqdaaruma eh, kemtalaayal la nga xam ne wulliita méngeef na la ko yow yonent salaay sallama min rutabin ci ay daraja ak i ba yow li la yàlla jox ci daraja jox la ko ci ba yow yonent bi loola nam toll kenn xamu ko ndax yonent bi salaay sallam dëgg dëgg yonent bi ku mooy yàlla xamuloo ku mooy yàlla xamuloo lolu motax muniko wa jalla miqdaru ma wulita min rutabin waya wa azza jafena lol a jafena ba ag ci lol idraaku maa yegg wala jot la nga xamne ulita joxef nalako yow la sallallahu alayhi wasallam min ni ci ay xewal gis nga la yàlla jox ci ay xewal ak jafe nit am ko wallahi wallahi dafa munta nek sax ndax yonent bi alayhi wasallam mom ci bopam moy jëm xewal yi gis nga ko moo tax mu ni nag bushra lana machara al islaami inna lana min al inaaya ruknan gayra munhadimi bushra mooy mbégte mais bushra buñ ko waxee ca arab mooy mbégte moo xamante ni bii ni kañ kay wax ñami waxal ñoom ñoo bokk ci lu ñuy yëngu ñooy yëkkatandoo di tegandoo foofu la ñuy waxee bushra ci arab waaw ah, kay boo xoolee yàlla buy wax ci alquran naan yonent yàlla naan naan naan yonent bi sallallahu alayhi wa gis nga fu mu waxee baatu tabshir rek parce que ñami waxal ñoo bokk ci la ñuy yëngu bashiril munafiqina bi anna lahum min allahi gis nga ko waaw foo ko fekk rek wa bashiri saabirina da koy jamu parce que ñoom ñoo bokk ci li ñu nekk moo tax bushra mbégte lanaa ñeel nañu macharal islaam yi ñun waa lislaam ñun mbooloom lislaam mbégte daal ñeel nañu am nañu mbégte lu tax mu ne inna lanaa amul werante ci ni ñeel nañu am nañu minal inaayati nag ci jagle parce que am na loo xam ne du coono jagle suñu borom rek la rukk nan ponk boo xam ni wéeruwaay boo xam ni muy sharia parce que rukk bi fii sharia lay firi rukk nan ponk boo xamante ni bii ni wallahi xeyra munhadimi du mabb ba mukk yonent bi salaay sallama mooy wéeruwaay bi dul daanu xam nga loolu nga déggee xale yi di ko woy nga defee ni woy yi kese la waaw waaye ay wolof la wante wér na xam na xaw ma nu mu koy waxee am na nu xale yi di waxee eh, neen xaw ma lan mbër mi dul daanu mooy Lamine mii ñu wóolu am na nuñ koy waxee noonu waaw kay ajaban man yéemu naa ci bi la mbër mi dul daanu mooy Lamine mii ñu wóolu noonu la amee nag gis nga inna la naa wér na ni ñeel nañu minal inaayati ci jagle yàlla moo ñu baaxee rek ñu bokk ci xeetu yonente bi jagle la rek moo tax mu ni nag ñun am nañ ci jagle bi yàlla ruknan ponk muy sharia bi wala muy yonente bi sallallahu alayhi wasallam ghayra munhadimi boo xam ni du màbb du daanu ba mukk wallaay noonu mu taxawee lay taxawee ba yowmal qiyaama mu ni nag loolu kañ la am mu ni lamma daa llahu daaina li taatihi bi akrami rusuli kunna akramal umami awaaw ah, dégg nga lamma daa keroog ba wootee allahu buur yàlla daaina nga xam ne moo ñu woo li taatihi ngir ñu topp ko topp yonent bi ndax wa atiu llaha wa atiu rasul ndax wa man yutii rasula faqad ataa allah kon bu la neexee fii nga ni li taat yi ngir topp yonent bi wala nga ni li taat yi ngir topp yàlla ndax ku topp yàlla topp yonent bi ku topp yonent bi topp yàlla aywa moo tax ba ñu yàlla woowee nag ngir ñu topp ko wala ngir ñu topp yonent bi bi akrami rusuli jaarale woote bi ca gën a tedd ci ñi mu yabal waaye kon nag kun naa ñu nit booba la ñu nekk akramul umam yi gën jaa tedd xeet yonent bee gën a tedd ci ñi yàlla yabal kon kay ci ñi ko yàlla ñooy gën a tedd ci xeet yi loolu rek la bëgg a wax su ko defee kon dafa mel ni bunt bi foofu la yem ñu ngi jéggalu di jéggale di ñaan yàlla yàlla boo yàlla na yàlla boole jéggal ñu li ñu fi jot a wax yàlla buur yàlla def ko muy leer tasaare ko ci jàkka ji ci àddina bi ngeen jéggal ñu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.